cheikh ahmad barewu mi jiite daairatu rawdu rayaxiin ak kii tuuru daairatu muqaddamatul xidma ak ñi ci nekk ñëpp di la siyaara bu wax te di la sant te di la gërëm te di la ñaanal te di la kañ lool nag te di la naw ci taxawaay ba rafet bi nga xam ni dafa boole rafet ak dëgër ànd ak ma ci diine ji rawatina nag yoon yoonu Seexul Xadim bi ak coono bi nga ci daj ngir yàlla ak sëriñ bi te àddina bépp teg ku bët kon sëriñ bi ngi lay jaajëfal ci coono boobu waaye tam ñu ngi lay ndokkeel bu baax nag ci ndam lu rëy li nga xam ne am nga ko ci ba àddina jëpp seere ndam loolu yàlla na sax noonu nag Mbàkke ñu ngi sant bu baax ci boole gi nga boole ci liggéey bi jàpp lañu ban man ko dafa tollu ànd koog noonu ba ñëpp xam ne yaa nu ko digal sa teewaayu sa teewaayu taw bi tey bii nag firnde na loolu moo wax kon nag Mbàkke ñu ngi sant bu baax tey gërëm ah, teewaay bii nag mi ngi mel ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ànd ak Cheikhul Khadim ci gàmmu bi ndax yaa fi nekkal Cheikhul Khadim te rasulullahi moo doon yonent bi sax Sëriñ Tuubaa moo doon rasulullahi saarin yu baatin kon mel na ni Cheikhul Khadim ànd ak yonent bi ñëw fi kon li fay amul rek yaakaar naa ne la nun nag li ñu seede ci yow mooy li Sëriñ Tuubaa waxoon rek madaytu bi daa wax fi nu waral ci faat nun de dëgmal naa maa ngi dem du ma gees waxumaa taxaw nun nag foofa rek lañ la seen foofe rek lañ la seen ñu ñaan tawfeex nag ba dégg la dégg say xalaat dégg sa itte dégg si pas-pas ñaanu loolu ngir xam nañu ne dëgg ma la yaa ngay dem te si itte mooy yóbbaale taalib yëpp te it jar na lu ne yanu nga bokk nga boot nga womat nga nax nga neexal nga yeete nga ngir ñu xam lañ mooy itte ak la muy waaye jërëjëf waaye bul bàyyi de ndax ñun dañoo dëgër bopp ci ñàkk itte te fi bàyyee rek dara du ko jar watal rek bañ dem gàmmu gi nag mi ngi nii ñetti kuréel la benn bi mu waay bi naafi lay jàng benn bi yusbul xulóob benn bi mu xadmatul am daa bar sañ ji bi man ak suñu ahmadu mi ak suñu abi bu ñoo koy jàng ñi nga xam ñoo jàng jës bu bi ak ñuy jàng mooy bi suñuy doom lanu suñuy njaboot lanu ci suñu biir daaree lañu nekk waaye ñuy jàng mu xadmaat bi ci gën a kat mooy séeréer sëñ Tuubaa yële dëkk ngooy séeréer sëñ Tuubaa yële dëkk Touba Ngoy ñooy yëkkati maayu bi ñooy yëkkati mu xadwaat bi ci gën a diis bokk ci daayira ilhaamul latiful xabiir sëñ Abdu koy jiite ko te ñu ju bari ci ñoom di yëngoo Ndakaaru waaye aj ba ju nekk sëñ Asajaar dana ànd ak mbooloo ci ñoom ñëw ànd ak daayira bi ci liggéey bi ñu bare jumaa ji lal tapp yi pompe ji taal taal cuuraay bi taxaw ci bunt yi buñ nappee ñu lam tapp yi delloo delluwaat ndakaaru ba bu jël si waat su màggal jotee ñoo ñoom koy set bokk liggéey bi mag bi jeex ñu raxas baaj ba mu set ñu dellu mbagal gu su mënti xew rek ba poroxaan noonu lañ koy def ñoo ñoom ñoo ànd liggéey poroxaan bi bu ñu xëyee tam ba ñoo julli dañ bale péncam ba mu set kon nag mbàkkee ñooy itam kat ci bagage yi lañ bu di fi kenn bàyyi wasalaamaaleykum wa rek ñii rek la demee xam fa fa mu tàmbalee ba fi mu agsi fa mu tàmbalee ba ci sëriñ seen nas bi bàyyi fi dara nas ngeen lépp noonu rek la fa tabaarakallah amul dara lu ci jàngat amul dara lu ci des nag rek moom la am bi may ñëw ñetti xaaj rek laa ko def tudd màggug suñu borom bi allahu akbar sant ko ci boole gi ñu boole sëriñ bi sant sëriñ bi ci tëfa juré jël am ci moom ñett yooyu ñetti baat yooyu laa ñu wax allahu akbar alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf jërëjëf ñett ñaar ñaar tubaab yi moom laa doon wax te ba ni ma àgg loolu rek laa leen di tontu nag seen seen taxawaay bi taxawaay bi taxawaay bi tabaarakallah la ko daal ci cosaan ba fi ba ba ci sëriñ bi si ngeen rafet dara desut fa tabaarakallah jërë ngeen jëf ñoo leen di sant gën a sant suñu borom mi leen bind te boole ñoom sëriñ gën a sant sëriñ mi ngi lépp te ak ëllëg di leen gën a sant seen taxawaay seen yitte seen yéene seen pësteef seen bëgg seen cofeel noonu leen di sant di leen gërëm bu baax ndax loolu yàlla leen ko defal waaye yéene ko jëfee ba mat sëkk jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf noo ngi ye noo leen di seereel yeesal suñu suñu yeesal suñu jaayante sëriñ ci noo gunóor nooy yi leen koy seereel di leen yeeseel di leen seereel ne waxtu bu ne ñoo ngi fas yéene fedd di suñu lax saay fas yéene ci tàkk ci jaamu yàlla liggéey liggéeyale ko sëriñ bi ànd ko yéen jaamu yàlla liggéeyale ko sëriñ bi boole ko ci la la la nu dese ci jaamu yàlla te sunu bàyyee nu ko nu boole nu boole jaamu yàlla gi nga xam ne moo nu feen di lanu ca dese ci lu baax lépp nu fasal ci sëriñ bi boole jaamu yàlla ga ak jëf ja liggéey ba delloo ko ko lanu ca lépp nu nu nu nu jébbalaat ko ko loolu mooy nu sax dàkk ci caamu yàlla ndax moo nu fenn waaye nu fasal ci sëriñ bi defal ko ko murub liggéeyam boole xoog lan dese woon nga xam ne suñ yàlla nu tawfeex yàlla nu dimbali ban mën koo def ci lu baax ak lu mën a doon nu boole lépp jéppal sëriñ bi doy nañu sëkk suñu diggante ak suñu borom ci biir ak ci biti tey àggal la nun ñaari ña ci ñaari diggante rek lañ nekk ci ñaari diggante rek lam nekk muy wéetal yàlla wéetal yàlla mooy def mooy digg la ca dolliku mooy dooloo sëñ bi digg ma boromam doy noonu sëkk doy noonu sëkk bu dee ci saayir bu dee ci waayir lu ma ta fàggu fàggul nanu ko tey ak ëllëg lu ma ta lu mën lu ma ta ñaanal ñaanal nanu ko te juwóone sax boromam kon dara dese wunu lu dul sax dàgg ci jaamu yàlla ak liggéey la ko sëñ Tuubaa jërë jëf noo ngi sant bu baax a baax a baax di leen sant bu baax a baax a baax ndax lu nu bëggoon lu nu fekk nañ ko ci yéen lu nu lu lu lii may wax li ma ci xam ak li ma ci yéene ak li ci bëgg lépp fekk nañ ko ci yéen fekk naa ko ci yéen kon kon noo gunu noyyi yal yal na sunu moom gën a dooleel sunu tawfeex sëriñ bi yal na sëriñ bi gën a gën a gën a gën a gàttanul boppam yal na sëriñ bi gën a wombatal boppam te gasam noonu ngërëm moom tey ak loolu rek mooy wax mooy ñaan jërë ngeen jëf kon naa ko yemele foofu jërë ngeen jëf waaw sant nañ nan sant nan sant rek nan sant rek sa sax tàkk diggante sant ak soññ suñu bopp daayima sant sax dàkk ci sant ak soññ suñu bopp daayima ñaari diggante ñaari jéggante yu jëkk ya mooy wéetal yàlla doylu sëriñ bi li ca tegu mooy sax dàkk ci sant tey sax dàkk ci soññ soññ suñu bopp sa soññ soññ suñu bopp jërë ngeen jëf وادخل المصلح في يدي وفي داري وثبته بالهادي الوفي